nu dafa roote ji baaru Kajoor may doon ko teg muy ñett luwaa yoo xam ni luwaay réew mi la luwaa askanu luwaay kilifa yi la pour que ñu mën koo matérialiser pour delloo ko te xam na ne bu ñu fa delluwul pour mën koo jàllale amul kenn koo xamante ni ci ñi fi nekk da ko mën a jàllale wala nga amu yéene boobu noonu ndax jàpp naa ni tey demande social la ñëpp te Cheikh Abdou Bara Dolly delluwaat ensemble ngir intérêt Sénégal pas intérêt parce que man ku ne xam na ni néew mu nee naa woon tax bëgguma dellu mais askanu ñoo wax ni obligation pour nga dellu pour nga mën a continuer liggéey loolu nga xamante mooy ay proposition loi yoo xam ne bàyyi woon loolu moo tax ma ñëw wax ko sëñ bi mu ñaanal ma si ma dégg ma ay kàddoom muy kàddu cant ak ngërëm goo xamante ni def na ko jëme ko si ñun te loolu mooy lu ñu wax dëgg yàlla loo xamante ni lu rëy ñun parce que ñun fii ñu ñëw dañ fee war a ñëw ndax tey fu fekkente ni la nan comme Touba ni muy xewle xewlee mun Mountakha yónnee fii li mu wax lépp gis nga ko li fu am lu si bari sëñ bee ko fi yónnee man ma ñëw en tant que doomu sëriñ Mountakha nekk taalibe dëkk Touba ñëw fii nga xamante ne suñu waajur la yaakaar naa ne su boobaa ñun li ñu war def def nañu ko lim ko war a def tamit si ay kaddu wax nañu ko ñaanal nañu. am na nañu yaakaar ci ñaan googu sama boroom nangul ñu ko ci barke bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak bërëb bu tedd bi fas yéene aussi tamit gën a continuer takk pour liggéeyal askan parce que réew mi rek moo ñu ñor leen ñoruñu pour dëkk bi am jàmm am dal ba pare yoon def li nga xam moom la war a def ci képp koo xamante ni tooñ nga réew wala nga yor allu réew mi. beneen ponk bu ñuy waxtaanee moom mooy mbiru Cheikh Omar Diagne gis nañu démb foofee ca Touba ca Massalikul Jinaan tàngoon na lool euh, gis nga sax ñenn ci ñoom jot nañoo yëkkati ay kàddu Cheikh Bara honorable lan moo ci sa xalaat ci mbir mi waaw sama xalaat si loolu mooy dama ko ñaawlu naqarlu ko comme ni ma ko defoon ci pencu ndaw réew mi parce que ku ne xam na ni man bu may wax damay wax fi nga xamante ni fa la ma askan wi tànnoon yóbbu ma ma wax ak ki nga xamante ni responsable la pour mu wax ko président de la république. yaakaar naa ba mu si waxee ak président de la république président de la génn na benn communiqué ci conseil des ministres dem na si kilifa diine am lu mu wax waaye loolu pour man doyut. mooy kooku nga xamante ni dafa tooñ kilifa diine yi te li mu wax daru si dëgg ñu sanctionné ko buñ ko sanctionné wul ñoom complice lan ak moom ci li nga xam moom lañ wax mm-hmm. ndax naar bu ndaw nag lu mu wax ci naar bu mag bi la ko jëlee te loolu moo tax ma ñëw ci sëriñ bi pour sàkkuwaat ñu dellu assemblée ngir ñu def ay loi yoo xamante ni képp ko afa chef l'état ak afa chef chef lycée yi ñoo bokk même àtte dañ lay jël tëj la si kaso bi waaw xam nga dàq gi moom moo gën a tuuti si liñ ko war a def mm. voilà bu ñëw si kër waajuram tànk xarit la bu ñëw si ko soppeem fee ñu nekk ci pencu ndaw réew mi dafa liggéey dafa liggéeyal diine heure bu ñu liggéeyee ba wàcc rek déglu say waxtaan gën ñoo jaat ju wàcc ci sa xam-xam bu rafet ci sa dal ci sa woyof sa bëgg jàmm ci réew mi air boo waxee àddina bi yëpp xam ni boroom xam-xama wax na kilifa wax ñas tànk yi day tànk cofeel la ñëw naa ci béréb bu tedd mi Medinatu Munawara ñëw naa si béréb bu sell boo xamante ni lépp lu fi waay wut si sama borom doon la ko may lii nga xamante ni moom ngay waaj muy bis boo xam ñëpp ñoo ko bokk. ñu jóge Ndakaaru ngir ñëw sàkku si yow ñaan siyaara la bëgg nga ñaanal ñu yàlla dolli ci réew mi jàmm defal ñu yoon bi nga xam moom la ñu topp sama borom may ñu si ndam pour liggéey lislaam fee ci péncu ndaw réew mi nag ku ne xam na ni am nañ fi ñaari mandat liggéeyal nañ fi diine ndax buñ liggéeyalee lislaam yëpp yéen nañ ko liggéeyal te bi ñuy delluwaat di liggéeyali euh, ah, lislaam ci péncu ndaw réew mi sëriñ mun taxaa mii suñu waajur di suñu sëriñ daf ñoo waxoon ne bu ngeen demee na ngeen fa nekkal diine bu ngeen fa nekkalee diine am fa ndam kenn mënut tuddee Assemblée nationale te tuddoo Cheikh Abdou Bara Dolly kon kooku ndamul diine la ba ñu fa nekkee tamit ñas na la wir ni lépp loo xam ne diine nanguwu ko dey nanguwuñu ko fa te lépp lu mas sa jàpp waxtu jul jot tamit dañ ko bàyyi dem julli ci yow lan fa toogal toogal fa sëñ mun taxaa toogal fa sëriñ Babacar toogal fa diine jëpp loolu bokk na si am na fa nag ab liggéey boo xamante ne muy ay mébét yoo fa jot a def benn bi mooy dugal naa benn proposition de boo xam ni mooy si borom ñaari tur dugal naa ko si kili ndigalul kilifa yu baax yëpp ndax ku ne xam na ni ngir ñu sàmm suñ diine ji sàmm suñu ndaw ñi dañoo war a criminaliser loolu nga xamante ni mooy borom ñaari turi fii ci Sénégal ñaareel bi dugal naa benn proposition de boo xamante nii dañoo war a indiwaat peine bi nga xam ne depuis 2004 lañ ko fi jëlee woon ndax ku ne xam na ne yàlla subhaanahu wa taala moo ñu gën a tedd ci suñ jëmm yi te yonte bi sallallahu alayhi wasallam si la alxuraan te wax na ni képp ko rey dañ laa war a rey xam nga aaye bi beneen bi dugal naa fa benn proposition loi boo xam ni ngir suñ kilifay diine yi ñu sàmm leen ba nga xamante ni saay-saay duñ mën a jot si ñoom ndax buñ indee article 81 80 jëmee ko ci njiitu réew war nañoo indi article 81 jëme ko si kilifa diine yi mhm. ndax jàpp naa ne kilifa diine yi ñoo gën a màgg njiitu réew ndax njiitu réew luy fol ko fol la mhm. waaye sa fal gii lii nga xam ne moom sa xilaafa gi mhm. du fol ko fol te heure bu yàlla na yeex ñoo ko yore kon ñes na la wér ni daal loolu ñu fa def ñu ngi ñaan nag assemblée bii bu war ñëwaat nga ñaanuñ sama borom delloo waat ñu foofa man ak ñii nga xam ñoom laa war a àndal ngir ko ñu man a continuer liggéeyal diina taxawal islam ndax kat buñ fa nekkul diina dana jooy lool ku ko fa nekkal loolu daal ñas mooy suñu tànk nga ñaan ñu bu baax a baax a baax di la siyaare nag di am cofeel si yow heure bu ñu la gisee dañuy kontaan suñu xel day sedd suñu xel dal bu baax a baax a baax te xam ni kat yow mi ne fii ak sañ sëñ Muntaxa ma nekk Touba de yéen ñaar yëpp laa yemale kat ndax lislaam da ngay fi nekkal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf alhamdulilah. dafa roote ji baaru Kajoor may way ku jara way moo ñu tuuse ay leer. amala makodo dafa roote ji baaru Kajoor may way ku jara way moo ñu tuuse ay leer may gewel bi ci lislaam amala makodo dafa roote ji defaroo tee ji baaru kaajoor may way ku jara way moo ñu tuuse ay leer ci lislaam xamal ma ji baaru kaajoor may way ku jara way moo ñu tuuse ay leer may gewel bi ci lislaam xamal ma ko door baaru kaajoor may way ku jara way moo ñu tuuse ay leer may gewel bi ci lislaam xamal ma ko doon ay leer may gewel bi ci lislaam xamal ma ko doon may way ku jara way moo ñu tuuse ay leer may gewel bi ci lislaam xamal ma ko doon islam xamal ma ko doon